ñoo ngi tudd yaakaar naa bu dul di lundi cannibalisation bi am diggante dimension yu bokk yi xel am na fu muy toll ci évolution day gàllankoor yaram bu fekkee yaram moom it évolution tollawul ak bu xel ruux même chose yaram même chose lan moo tax ñu stéréotype ku am yaramam nu mu toll rek xelam du toll waaye gis nga dafa am ko ma ci gàgganti du ma ne sax gàgganti waaye daf daf ma ci indal gisin bu bees ci waxin benn bodybuilder la bu ñu woowee Kai Green ponkalum nit waaye dama dégg mu wax wax joo xam ni ku yabu bàyyi ko xel def ne gis nga nit ñi dañuy wax mel ni dafa am choix boo war a def mel ni nit soit da ngay am xel bu jaar yoon wala nga am yaram bu jaar yoon mu ne man nag d'accorduma mu ne man li ma gëm mooy sama xel dama koy tàggat ba mu àgg fi mu war a àgg bu ma paree tabaxal ko yaram bu toll ni moom ndax moo ko war a mën a abriter et il a parfaitement raison ndax xel dafay màgg xel dafay màgg Sëriñ Babacar moo jàngale paan bu feesee loo ci dolli mu tuuru même principe bi la sa xel boko environnement bu mu meuna étendre meun ci épanouir meun ci évoluer mais il faut loolu tax da nga dem bu mujj lu ndaw lu vous sa xel sa yaram vous ko rek nouvelle bu nouvelle bu doy war xam nga bu doy am nga problème journée ainsi de suite waaye yaram non noonu lay may même même effet bi ci xel moo muy sportif muy intellectuel il faut ñaari jaxasoo nit bu waree mat il faut mu nekk un athlète hors pair mais il faut tamit mu être borom xel ak borom xam-xam bo xam ni kenn du ko raw ci jamonoom moom la Socrate waxoon ci waxam ba xëy na sax moom xëy na comprendre gravité ou li mu est, mu ne jaaduwul ci nit mu dund ba àgg benn âge bi te seedewul yaramam li mën ci kàttan ak taar c'est très important parce que dañ ko doon waxtaanee xëy na sax dina laa ci benn question bu ñu évolution dañ koy tudd di tudd développement xëy na sax léegi tudd nañ progression waaye croissance tamit ci la bokk léegi nag lan mooy différence yi bu évolution application au principe bi la waaye bu ñu développement développement plan bi plan d'évolution bi la moo tax da nga koy séen waaye du progression constante bi la constat d'évolution bi la moo tax moom day ñëw nekk ne def nangam progression la ñuy tudd croissance c'est le cadre médical té day aussi ci man li est-ce que réellement fi médecine yamale nit fofu le potentiel am yam ndax nit nu muy da fay judd di mag, di mag, di mag, ba des jot bi détérioré di détérioré di détérioré et pourtant ñun ñu jàng ci li ñu yalla ni nit évolution warul demee non lolou du croissance kon croissance lan la croissance plan le ba mais plan bu idéaliste la plan bu idéaliste la lo xam dang da koy tudd mu grandiose way xam nga ni ci application dina am ay fay mais nak évolution kon ba léegi lan évolution moy permettre nit

loloy permettre nit mu xamanteeg yaramam façon bo xamné bala dara di ci dugg mo xam corps étranger la mo xam leneen daf koy loloy permettre nit bu feebar dikksee mu décider ba xam nangu na mu daaneel comme déet li yépp ci nit la bok waxuma doomu aadama kon nak une évolution nécessaire c'est c'est très important c'est très important xam nga dafa am tamit Habib loo tudd sang. mooy personne poson boo xam ne da nga koy jël am problème gis nga yàlla ni mu màndoo c'est extraordinaire nit doxalinam ak ay moromam doxalinam ak juridiction doxalinam ak yenen yenen minde fi fi nek yaramam da fay sédé motax élection foog mo am premier tour corps. résultat est korité deuxième tour résultat est fan là, tabaski <laughs> mag jangale jàngale nañ lu ne lu ne Serigne Cheikh mi doon wax ni nit warul tër xar ren ko mu ko ni gën nako c'est extraordinaire c'est extraordinaire na xam nga ñu bëri dafa am lu comprendre gis nga ñoo ngi tudd évolution évolution nit fi la jóge ak mais est-ce que xam nañ lan lay yalla japp mom muy golo golo bëtu yalla moy ki nga xamni tay ji amna am na yaramam am xelam amna ruxam waye lank ne du ubi xolam du ubi xelam Lulu ay tiaxan kon nak ci baat bobu évolution scientifique bi biñuy wax amul parce que seen golo yooyu ñoo fees jamono seen golo yooyu ñoo indi crise jamono seen golo yooyu ñoo yàq àdduna kon nag évolution bu fekkee dafa am amul ci golo ci doomu aadama jëm ci nit la mën a am mais li jar a bàyyi xel mooy nit ni muy jàppale boppam xëy sax lii dina xaw a dugg ci temu lundi bi ndax utilité bi foofu la nit amna numuy doxale waxuma la sax ak morom mais ak bopam yaramam gedd ko nit xey di yëg ci bopam feebar yo xamni dana dem ci docteur dana dem ci hôpital dana dem fune duñ gis dar et pourtant mon ci boppam xamna ni il y a quelque chose il y a quelque chose qui cloche way de l'autre côté aussi ci évolution nit dana am numuy muy jëfanteeg ay morom numuy muy jëfanteeg boppam dana xey éléments yi wara dajé dajalee daje pour mu yam fa dajé ci mom et pourtant yaramam xelam ruham bu si nek ak intervention bi muy def bu si nek ak opération bi muy def ba daxal ko lolu nga dem ci docteur dem ci ku ne mu la ah yow de ni nga wéré ni ñi tolloog yow yëpp am nañ problème nga xam ko amna na jaar ak sa bop ah